jërëjëf mbokk yi xanaa di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Euh, kooku di Aziz balaa ñëpp xam ko ci fecckat boobu noonu di danseur euh, moo wuy ji boromam waaye dégg ngeen anam yi nga xamante ni jot nañ ko si information nee nañ dañ ko fekk foofu nga xamante ni moo di si biir sàmboram rendi ko waaye mbokk yi information yi euh, jot nañ ko nag sànq waaye ñi ngi déggaat yeneen kàddu yoo xamante ni jot nañ ko foofu noonu nga xamante ni foofu lañ ko rendee ñi ngi wax ni am na keneen kum fa nekkaloon koo xamante ni moom it dañ ko fàtte waaye mbokk yi nañ ko teewlu rek ba xam information yi dinañ si mën a leerlu yeneen information yu wóoru ñu indil leen ko